saa yi nii première dame moo ñëw indi mi policier yi ñu leen lekk yi ak jus yaa ngi nii donc ci rond point yi donc ni nga gisee ni première dame mooy dot yi yëpp def si lekk ba mu fees del ñëw jox di ko jox policiers yi ak gendarmerie yi ñu nekk si rond point yi hmm? voilà depuis le début léegi donc chaque soir da ngeen di wër euh, rond point yi yëpp ok à Thiès ah ba fan Thiès képp kuy policier képp kuy gendarme képp ku monte on a fait tout Dakar là on sort. on après kees da ngeen war wala. mun buñ fekkee ni suba nañuy continuer vers on fait tout le Sénégal. ah d' accord chaque soir chaque soir ah. ok merci. comme nañu ko déggee. Acti-Sen. Acti-Sen. Première dame. Eh. Première dame. Mooy lii yëpp. ko policier yi ah ok kon lii c'est la première fois wala sa saako ngeen ah ok ok